jërë ngeen jëf a yëglekaay gi di Likzo TV nga xamante ne mooy oustaz boobu nga xamante ne jàpp na xale bu jigéen ba def ko lu bon loolu nga xamante ne lu ñëpp naan la Sénégal gars yi ñu déglu jimboori révélation yi nga xamante ne def na ko boobu gars yi ñu déglu ko gars yi li ma leen expliquer lenn la benn oustaz bu xam ne nii ñaari télé yi gën a mag nag ci benn tele bi ci lay liggéeyee oustaz boobu yow laay waxal wax dëgg yàlla am na yoo xam ni ñun ñoo ko waroon a def yéen ngeen ñu ciy génnee mais dafa naa ni yéen waroo leen a dem di ko def oustaz bi xam nan la demee dafa am benn paam bu nekk Europe yaa ngi dégg dama koy teg nii après boo bañee def dinaa génne affaire yi bàyyi paam bi mu weer la moom mu man ma nee bi ba paam bi ñëw fii ci yenn cité luye fi jógee jóge Europe jaar na fa moom usaas bi de tëdd ko ñetti yoon paam bi jox ko xaalis bu dul jeex mu nax paam bi ba paam bi dellu Europe paam bi bu la woowee téléphone doo ko jël di ko wër-wër loo foo ko teg xam nga lu ñu bëgg yéen yi ngeen di def jaaduwul moo tax ñu bëri di leen ñenn ñi ñuy wax ustaas duñu ustaas ut taat lañu ut taat yaa ngi dégg am na yu leen war am yu leen warul yaa ngi dégg mais nit ki di ko day rafet moom nag dala bo dalaa naroon a bili pàndey man maa ci jot santal yàlla bi ma ci jotee ma ne ko bu mu demee noonu dinaa wax xëy na moom bu déggee dana la wuyu te dana la wuyu téléphone woo la bi ngay ustaasu ba léegi yàgg na am na ustaas yu xam ne yaa leen jiitu si ustaas saa boo waxee ñu naw la te sa jëfin aussi na nekk jëf bu rafet na nekk jëf bu rafet na nekk jëf bu rafet ustaas ustaas wax naa la de ñaari télé yi gën a mag laa wax de ci benn télé bi lay liggéeyee dofoo jinne kattu la xam nga sa bopp bu baax boo génnul nag wuyu faam bi dinaa bàyyi faam bi te femme bi ñi mu nar a jox say say say vocal ak say affaire wallahi boo boo boo tey jii nii xoola boo ma woowee ma jël la ñu waxtaan ba juboo xam nga waxtaan ba juboo dafa neex moo gën mais gis nga ñi ma ñi mu wax ni da leen di jox say affaire gis nga boo daf dafloo ba mu jébbal leen say affaire wallahi xoola sa tur woowu ni mu màggee di nga ñàq lu bari ngir yàlla oustaz yow laay waxal dégg yéen lislaam da ngeen a waroon a appliquer lislaam mais mbaam yi sëfi téere ngeen xam nga mbaam day sëf téere mais du ko jàng mbaam yi sëfi téere ngeen ñenn ñi ci yéen mbaam yi sëfi téere leen bi ma tegalee affaire bi tegal ma vocal yi tegal ma woo appel yi mu lay appel jëloo ko ak d'abord moom nëbbu ma boppam ni jaar nga fa tëdde ko ñetti yoon xam nga ko bu ma nee la ñetti yoon jaar nga fa su ma neexoon damay tudd fan nga ko tëddee ñaata yoon ak heure beeg yëpp Oustaz wuyul appel yi jox ko xaalisam comme takkatoo ko mu jox keneen mu takk ko waaw nax ko ba mu ñëw fii